bés niki ki arafa ci la sang bi taxawon ci xutbaam bu matale ba démb mu daldi wax ak dom adam yi wax ak julit ñi mu daldi wax ne inna aqwa inna dimaakum wa amwalakum si benen riwaya wa aradakum حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ca la dem ba ne wa ribal jahiliyati mawdu wa awalu riban adauhu ribaana riba abbas ibni abdil muttalib fa innahu kulluha mawdu fa innahu kulluhu mawdu dafa wax ne seeni deret seeni alal seeni der araam na seen diggante ni mu araame si suñu bés bi ci weer wi ci barab bi ba yowmal xiyaam mu dal di wax ne mbooleem lu bokkoon ci ak ceddo neenal naa ko teg naa ko sama ndëggul tànkal yi ba mu ñëwee ci riba dafa wax ne lépp loo xam ne mooy riba ak ceddo lebal la benna nga fay ma ñaar wala lebal la fukk nga bay fa fukk ak nangam mu ne loolu lépp neenaal naa ko teg naa ko sama ndëggul tànk te bi may tàmbalee mooy suñu bos xoolal yonent bi ak ni mu oyofe moom bu def lante de waaye ci fameem la la la la mbir ma am wa anzir asiratakal aqrabin booy xuppe di waare tàmbaleel ci say mbokk yi la jigéen mu ne mooy suñu riba ribaab abbas mooy bàyyi tëxam xam ngeen mu ne ku fi moom lépp neenal naa ko ku fi abbas lebaloon fukk teg si dara lim ci tegoon jëfee te nga delloo ko boppu alalam delloo ka boppu alalam kon nag mu ne lépp luy riba far naa ko ba yawmal xiyaama képp ku ko indi nga xam ne loolu si ceddo la bokk képp ku ko indiwaat ci diineem nag ak noo ko mën di waate bu la yaboo xam ne dugalaat nga ak ceddo ci biir diineem